Euh, muy institut boo xam ne day jàngale alquran di jàngale xam-xam jàngale français day def formation tam day def euh, lépp rek ci lu aju ci euh, développement daara ji itam mi ngi nekkee fii ñuy waxee ak yéen géejawaay ci Wakhinane Nimzaat ñu ñëwoon fii nag tey ngir wane promotion bi nga xam ne mooy suñ dix-neuvième promotion Eh, xale yi mokkal alxuraan waxuñu wàcc mais dañoo mokkal kaamil bi tari ko ñu waroon bégal leen bégal seen i wayjur waaye soññe ko seen soññe seen i moroom soññe ko seen moroom waaye soññe leen ko ñoom itam loolu moo waraloon ñu ñëw fii tey cérémonie bi nag di bis boo xam ne eh, xaw ma bis yi ci kanam waaye yi weesu bu ma ko ci gën a fonk amu ci ndax eh, ñoo ngi ko def ci ndigalul suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Bachir mu sëñ Fallou tudde ko Cheikh Mokhtar Bintaloo ñoom rek ak eh, ay parrains yoo xam ne ñu liggéeyal lislaam lañ ñoo xam ne ñu am ñu ñu ñu am tawfiq lañ kon bis la boo xam ne wax dëgg yàlla te it eh, biñ ci amit wax dëgg suñu xol seet na ci bu baax a baax. waaw modernisation des daara moom wax dëgg yàlla man dama bëggut eh, wax lu ma gëmut wala lu ma xamut modernisation des daara maa ngi koy dégg maa ngi dégg programme yi ba tàmbalee ba léegi waaye man xawma lu muy jariñ daal. xaw ma lu muy jëriñ ndax modernisation des daara bu fekkee moderniser ko mooy jox leen ay moyens logistique loolu mooy modernisation bi wala programme yi fay jàngale moom la ñuy moderne méthode ya xawma ma loolu dara wóoruma ci man li ma gis rek mooy euh, maa ngi nekk secrétaire généralu Ligue des écoles coraniques du Sénégal nekk ci membre fondateur ba mu tàmbalee ba léegi modernisation boobu ñuy wax ba mu tàmbalee ba léegi ah ay milliers lan ñun waaye gisaguma ci ñetti nit ñoo xam ne bokk nañ ci am nañ ci bénéficier nañ ci moo tax mënuma cee wax dara li am daal ba des mooy jàpp naa ne bu fekkoon dimbali nañ ay daara ci taxawu leen man li ma jiite ci mbooloo yooyu yuy yëngu ci daara te mosuma cee gis koo xam ne daf ne ma maanaam dañ maa defal lii du terrain buñ ma tabaxal maa ngi tabax naa fi Euh, euh, daara boo xam ne 600 mètres carrés fondement naa ko ba toll ci ràmbale ko nit ñëw taq ca yóbbu ma ci yoon ñu dem tribunal mu mujj am dëgg dëgg goo xam ne gu taq suuf la ma def recours sama avocat def recours ñu jàpp ne dañuy dañ dañ ñoo war a woo ma toog ba yàgg ñu ne vidé nañ dossier bi kooka ñëw tàmbali ca sama kaw fondement muy tabax ba fi mu ne nii raase na ko ma mujj yàgg dem porter plainte ki ma ko jaayoon. ñu yéeg a ko wàcc maag moom ma mujj am dëgg ci moom ndax bu ko moomoon man du ma ñàkk loolu xëy na nag bu fekkente ne euh, da ngay dugg ci yéeg a ko dugg ci bureau ŋàbb sab saak loolu moom lu may may du ma ko am man damay toog nekk ci rek lu ma ci fekk fekk ma ci waaye ay modernisation yooyu moom euh, néew ma gëw ma ko ndax damaa moderne man programme yi ma gis ñuy wax ak néew ci modernisation des daara bi ñu koy wax man fekk na dépassé naa loolu tollootuma fa man te maa ko def ci sama moyens ay bopp malgré que fa ma nekk sax maa ngi fay presque lu jë mat un million ci luyaas ba nekkee fii tey ñaari at ñetti at borom bu gisee ne loyer bi yokk na man na leen damaa bëgg a pentiraat damaa bëgg dal bi dafa kii nga génn bala moo mat quatre mois cinq nga gis mu dugal fa keneen loolu moo tax ñu jël initiative bi ñu jël dogu suñ dogu euh, dem Touba am fa 3000 euh, mètres carrés yoo xam ne moom nga gis muy projet bi ñu doon annoncé pour maanaam lu ñu ci waay jàppale ñu def ca lu nu am itam def ca. projet bi ñaata dina ma trois cent trois cent millions ndax am na mosquée grande mosquée am na ci am na daara alxuraan am na fu donga yi dëkk am na franco arabe école boo xam ne ba ba ngay am bac bu soobee yàlla boo fa duggee doo génn ba ba ngay am bac loolu nag. daara ji moom li fi jotagoon tari nga xam ne ñoom noppi nañ ba am diplôme